salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp dama bëgg a def benn live si euh, responsabilité bi nga xam ne nit yi nga xam dañ am pouvoir walla ñu dénk leen ay pouvoir ñu jox leen ay moyens bu jiyee amee ci liggéey bi ñu dénk responsabilité bon ñu mën ko situer ba pare sanction yi tollu ne li nga xamné moy mooy jéego yu toll damay déparé ci phrase bateau le djola c'est connu que mon moy catastrophe bi gëna a mag ci aduna bu mu ba légui fait ñuy wax affaire transport maritime civil ay près de 2000 morts 2000 morts boo ko doon xayma tey des ngi doon nga jëloon ay village villages yu bëree bëree ba dajal leen rek ñu mel noonu ñoo dee ci bi gis nañ ni à l'époque suñu président Abdoulaye Wade bi mu defee mooy gaawantu fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñooy parents wu victime yi mu signaloo leen jox leen xaalis pour ñu renoncer topp état bi ndax xam nañ li nga xam ne bu toppoon état bi mu am procès bu normal sanction yi nga xam ne mooy dal si état bi parce que responsabilité état bi la boobu ba léegi premier ministre bi président bi armée bi chef d'état-major bi amul kenn koo xam ne nii sanctionné nañ ko à la hauteur de jiyee jooju kiñ ñu teg ci ndoddam ne moom mooy capitaine bateau bi réer kenn gis ko moom mooy responsable alors que responsabilité bi dafa nekk responsabilité à échelle parce que ça dépendait de l'armée bateau lu Joola bu ñu jógee si loolu ñu wax si Abdoulaye Timéra nga xam ne nii nuy 23 jëm 24.

ndax juste benn damm-damm boobu police bi mi ngi toog accompagner wuñ ko ba mu ñax si bakkanam ñu gisoon à l'époque ki nga xam ne moo nekkoon ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye dama seeti woon famille bi bi mu fa jógee mu def benn tweet ci Twitter wax ne seeti na famille bi famille bi euh, nangu nañ ndogalu yàlla ci ay waxam ci Twitter ba pare il s'en remet à Dieu comme quoi ak loolu ndogalu yàlla la alors que famille bi waxuñu ko loolu Abdoulaye Timéra parce que xam naa Daouda Timéra moom boobu ba léegi nag ñoom nanguwuñu woon loolu ñu ngi xeex pour seen rakk boobu mi nga xam ne à très bas âge lañ ko fi jëlee ci anam yu mag yu ñaaw yooyu mu am procès mais boobu ba léegi amul procès amul responsable. ministre de l'intérieur bi daw na fexe na ba ñi nga xam ne ils étaient identifiés parce que oto bi foto nañ ko am nañ plaque bi jour boobu xam nañ ñan ñoo dugg si oto bi xam nañ ñan kan mu dawal mais ba léegi kenn amul turu nit policiers yi fa ñoo fa nekkoon nekk responsable boobu muy beneen jéeya beneen bi si topp avant may ñëw si Linguère bi mooy dafa ndoroog bakkanu nit ñi ñi nga xam ne mooy suñu njiit yi joxuñu leen cër mu ne joxuñu leen cër ñu leen dayo boobu bu nekkee ne ki nga xam ne nekk na si biiru ndeyam matagul ñu koy wooyee prématuré daanaka li ko war a togg ba mu mat sëkk génn nekk nit ku mat dajaloowul d'abord ci affaire Ousmane Sonko ba dañ dégg capitaine Touré mu wax lu am solo mais ñu bëri jàppuñu capitaine Touré li tax moom mu posé ak yi mu boo leen xoolaatee interview bi mu may waa Sen TV bi mu ñëwee ba ci bébé prématuré bi bi nga xam ne moom dañoo bëggoon mu jàpp yaay ji fekk boobu bébé bi dafa soxla yaay ji mu koy nàmpal ak chaleur am ñu koy wax kanguru pour mu mën a développer. mais boobu ni mu ko waxee ak ni mu ci insisté ba mu jaral ko moom mu woote avocat boo xam ne xam na ne xaritam loolu bu nekk université ba mu jaral ko moom mu wax ne commandant am li procureur bi wax loolu du yëfu nit mu jaral ko loolu mu wax ko ci interview boobu mais boo xoolee nit ñi ay affaire peut boo leen xoolee nit ñi yeneen affaires yi moo leen gënaloon ñoom. c'est le nekk di wax que bébé boobu mais bébé boobu bakkan la mon la raison principale ce que ce que j'ai compris de la raison principale li tax euh, capitaine Touré mu ou walla mu engagé moom responsabilité pour mettre l'affaire en public loolu boo leen déggatee te loolu noonu moom humanité c'est-à-dire

donc bu nekkee ne ñi nga xam ne sax mataguñ nekk sénégalais ñu des gens mataguñ mooy seen cër seen cër des seen nooyi sont ñooñu ñooñu ñoo ñooñu la ñi ñi mat di mettre en danger y a un problème ñëw si li xew ci euh, centre de santé bu Linguère bébé génn si àdduna ci lakk ñaar lakk ci nekk état boo xam état critique la boo leen xoolee image yi ngeen xool toit yi ngeen xool bu baax ak plafonnier bi ak euh, climatiseur bi état bi salle boobu nekk ce n'est pas digne foofu ñi nga xam ne boo ba ba yooyu ñu fa dugal li ko waroon def bu nekkoon xaalis bi ko waroon def ba mu ba mu sécuriser mi ngi fa du mel noonu léegi gis naa ñu wane benn ci yaay yi mu ànd ak yaayam en général loolu la demee ci Linguère ci genre village yooyu maam yi ñoom ñooy ñëw di dimbale seen doom daanaka seen jàng du sori duñu xam lu bëri ñu ngi ci couveuse soxla ay soxla ay euh, oxygène loolu ñoom dañuy fay seen seen dañuy pour mën a dékku dépense parce que c'est très cher est-ce que ñoom xam nañ ne dès des que ñu dugal seen doom foofu si couveuse si di fay seen xaalis am assurance am na responsabilité d'abord ci de santé bi la médecin chef de centre bi avant tout moins infirmières yi nga sont elles sont ou bien ils sont responsables de leur garde parce que euh, <coughs> prématurés normalement l'acte bu déparé sax normalement as 24 dañu wara a surveiller waroon na am au moins ko fay nek di len surveiller de visu benen bi moy non la mën a lakkee ba jeex ba xal yoy laq ci après ce qui va se passer moy ministre Abdoulaye Diouf saa dem na dina rencontre famille yi mën naa am mu waxtaan ak ñoom ñu teg ko ci yàlla la dogalu yàlla la mën naa am jox leen un million wala cinq mën naa am jox leen deux millions mën naa am jox leen loolu lépp pour daw ñoom seen ay responsabilité lañ parce que ñoo ñooñu noonu bu nekkee xam nañu dëkk seen seen seen yoon mooy dès l'instant que ñu ngi leen di fayloo ticket ñu ngi leen di fayloo oxygène ñu ngi leen di fayloo location ñoom couveuse yooyu noonu ñu ngeen leen ñu ngi loolu lépp dafa am responsabilité boo xam ne nii assurance la ak responsabilité boo xam ne nii courant bi ki ko installé centre sant bi ñoo ko def ni ko waroon sécuriser loolu lépp ñoom seen responsabilité la même bu nekkee projet boo xam dafa war a durer dix ans ñooñu bu ñu leen fayee xaalis tey kenn du ko waxati muy kin roog rek euh, étudiants yi kiñ jamoon bala gay kiñ jamoon ci bët yàqu bëtam mu topp état bi. bien après je pense on lui pense genre deux cent millions parce que kooku nanguwul peut-être ñu fay xaalis mais dafa topp état bi donc état bi loolu lay bañ mooy day def tu tout tu tout tout ba bu amee rek nga ñëw jël koo xam ne pour mu gis cent mille yooyu dajale si loxo da problème la nga ñëw tegal ko un million day jël xaalis boobu mais loolu wattuwul bakkan au-delà xaalis boobu li ci topp mooy responsabilité boobu bu ñu leen toppee.

nañ leen topp li ngeen xool d'ici un an on va en reparler y aura aucune responsabilité dara naada zéro parce que Sénégal dañuy jàpp ne lépp lu am yàlla la waaw mais dafa am ci loxo nit ku jaar sinon ñu bàyyi ñu bàyyi yàlla mu mu gouverneur dëkk bi et puis ku nekk def lu neex après lu ko dal dañu ne yàlla moo def non non yéen lañ leen teg fi ngeen teg. di di di jël suñu xaalis di fay hôpital ak feneen ak feneen pour ngeen ñu artu bu nekkee loolu nag am na lu si lu ci lu ci sooxe da ngeen nangu jël seen responsabilité je suis responsable bu kenn nanguwul def loolu ñu def enquête boo xam ne day situer responsabilité yi en général nan lay demee boo xoolee ci manifestation yi ak lu si bëree bëri nan lay demee premièrement da ngay gis ñu ne kenn gaañu na takk nga dégg. journaliste yi wala ñu nekk si di dem fa parents yi mettit lu jooy xam nga euh, yuuxu xam nga ñaawlu gouvernement bi song leen ci ay wax ni léegi léegi léegi lii bay première étape deuxième étape waa gouvernement ba dem fa autorité dem fa waxtaan ak moom bàyyi fa dara automatiquement bu ñu fa ñëwaatee parents yi changé wax ñoom ñu ñu ñu promettre leen ay affaire xaalis wala dem wala parce que responsabilité ba parents yi bu journaliste ñu kenn xam nga journaliste million deux millions quelque qui dootoo leen après vous passé un an deux ans même booy wax actualité bu passé la nit ñi avez et tu vas te plaindre ah, gis mais ñu problème bi automatiquement. wax ci dal suuf ñu bañ a topp nit ñu bañ am plainte boo xam ne papier la parce que homicide mooy rey nit boo plainte loolu dañuy wax ne amul prescription amul prescription mooy boo sàccee sax boo doyee dix an après kenn mënut la topp mais rey moom dès que nga plainte fii ba abadan même bu nekkee ne trente ans la mën nañ génn dossier bi topp ñi nga xam ne nii moo doon médecin yeeg wala gouvernement bi. donc ñoom sommes la parce que xam nañ euh, droit juridiquement plainte bi ngay mu premier acte de leur vie et engager sa responsabilité donc il faut que nit ñi xam ko ak bëgg ak dans des conditions difficiles xam bakkan amul prix amul kenn ko ko xale yooyu lan lañ waroon a nekk suba moo tax di leen bañ di nuyu Daouda Timara di nuyu sa sa sa famille ak ñi nga xam ne nii ñu mel na ñoom sax njaay la ñoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi xeexoo leen pour yéen bopp seen bopp ah. da ngeen xeex pour lii mu bañ amaat ñeneen même bu nekkee ne muy dàmpaay muy sanction dafa war dal si ñi ko def mais ça permettra une fois qu'on aura sanctionné les policiers ñu def ko beneen ñoom ñoom dinañ xool mooy comme li am si kii rek.

place euh, l'affaire là des quatre bébés morts des quatre bébés morts hein, brûlés mais ci ben genre nous minute rek après mu dem après ñu nek di wax affaire essence après essence affaire essence xam nga pendant ci ci information yépp alors que loolu non information bu grave ko dëkk wala ngay dund si région wala ci banlieue wala feneen ak feneen.

matériels yooyu ce sont des matériels actuels parce que médecine bi mais da ngay gis ñu utiliser ay matériels yoo xam ne si depuis 30 ans après may nañ ko ñu ni ko ci ay conteneurs ah hein, matériel yoo xam ne nii dépassé na c'est dépassé toujours nga gis ku ñëw xëpp fi ay ay ay ay conteneurs de kii yoo xam ne électronique bi sax ordinateur yu koy yu koy contrôler yooyu seen logiciel jeex na ñu ñu koy may église ay maire dem di ko kii wala réceptionné du matériel médical affaire par kii wala affaire par kër te kooku dafa ñëw gars yi may ko ko bëggul parce amuñu place te bu ñu koy détruire dafa c'est un problème ñu ñu envoyé la ko mais matériel boobu rek risque la fi fi fi électronique toll fi électricité toll yow nga jël genre matériel yooyu indi ko mais loolu rek mais c'est c'est c'est risque la pays yu mel comme Rwanda mais. 94 ñu nekk si ay ay ay problème comme Éthiopie mais genre matériel am en fa pays yooyu boo fa demee tey da ngay da ngay xeeb Sénégal ñun Sénégal ñu toog boobu ba léegi ay matériel yoo xam ne nii dañuy dañuy ñaan rek comme li Galawaar waxoon ñaan rek bu ñëwee may nañu lii may nañu lii lii yoo xam ne baaxul ay ay ay ay matériel yoo xam ne nii c'est toujours mais responsabilité boobu nag il est temps que ku def ñoom be nous la comme si série l'épisode épisode 15 bi je voulais peut-être toucher au plus mal peut-être tax bi ko xam amul papa amul eh, papa amul eh, donc kan kan c'est-à-dire dès l'instant quand mo ko mais tu es en souci dans notre structure de santé vraiment donc mm, mm, loolu moo nekkoon kii bi xaw na gudd nag parce que bëgguma def ay laaj yu gudd pour nga mën mën ko seetaan mais le message principal mooy ñi nga xam ne dañ am ay responsabilité bu ñu defee ay jiya dañ leen sanctionné à la